ñi xam ne ngi si aussi dakar animaux point com tey euh, ñu amaat vraiment un grand contentement mu rëy rëy rëy rëy toog ak ki nga xamante ni moo di boo Djiné Boy Djiné moom son visage vous vraiment familier ci site bi moom nga bëri na intervention yu mu siy def di si di joxe xam-xam bu bëree bëree bëree bëri tey ñu ñëw Mbambilor Mbambilor boo Djiné dëkk Thiès ñëw Mbambilor loolu nañu expliqué lan moo tax Boy Djiné naka mu. Eh, Babacar waa maa lay siyaar bu baax. Euh, avant tout je euh, suis nuyu au Sénégal Je euh, suis plus particulièrement mes parents comme d'habitude di nuyu papa Suleiman, di nuyu sama à Aïda di nuyu tamit sama famille aussi à mon éleveur éleveur canin. milieu aussi da ngay élevage suis ci Sénégal émission. objectif bi benn la mu nekk loo xamante ni vraiment intéressé na bu baax a baax a baax éleveurs yi day intéressé passionnés yi Sénégal léegi bëri na xaj ñu tey leen xaj bi xaj la rek mais nu xaj-xaje c'est très important nit ñi war nañu am fulla ju toll ni ni laadum yi def ba réussir ko laadum boo ci laal ñu wax la papaam wax la maamam jaay ko ay millions tey dafa mel ni ci ci ci voie boobu lañ tegu de tey jii Wow, ah, non c'est un surplus en fait avant tout de remercier euh, grand Matar bu a vraiment di ni mu euh, euh, monde élevage l'élevage. yëpp Voilà, exactement. voilà grand bi dafa nekk dafa nekk nit comme bari. grand bu baax suis un grand Jean Barnier voilà mu présenté mako ñu dik fi tok waxtan mais bama dugg ci man dama surprise si euh, sujet yi ma fek euh, non vraiment non man man je ne suis pas trop rot man xam man je suis je suis plutôt pit. Mhm. man j'aime les américains pit j'aime j'aime les américains pitbull terrier plus que tout ñep lool ñep xam nañ ko mais man suma ma lo rafet. je ne suis pas méchant dama koy wax mais dama ñëw gis ay sujets yu rafet yu extraordinaire mais bu yemoon si loolu rek mu neex mu doon ay sujet de pedigree avec leurs parents yi nga xamante ni ay champion lañ en Europe. euh wax nga légui le moo pedigree pour sama genre yi nga xamné xamuñu dara dara dara dara ci xaj man yàlla dogal ma ngi dooroo gis xaj ni ni donc tay ki nga xam ne nga ko expliquer importance du pedigree ci xaj lan la. wax xam nga tay ji ni bu nee la le chien est stable. psychologiquement. hein lool non lu koy démontrer moy lan xaj bi pedigree pedigree mom moy arbre généalogique gu xaj bi. mooy kan mooy baayam baayam kan mooy baayam maamu xaj bi kon boog maamaati maamu xaj bi ba maamaat dañ lay wan ba ay 17 génération xaj yi bi bi nga xamante ni ci côté papaam yépp dañoo doon ay lignes yu stable nga ñëwaat ci ay 17 lignes ci yaayam côté boobu noonu ñu wan la ci ay ci ligne boo xamante ni dañoo stable ba pare nag du yam rek si loolu stabilité rek mais dañuy doon ay champion mooy ay champ champion lay doon comprendre nga. loolu pédigré nga xol ko mu leer la avec certitude que ni yow li ngay jënd ni sang bu pur et pur ba pur ba fa pur yam la. del lire de nera. Ah, del lire de nera. Ah, ah, ok. fi papa yi. waaw. pédigré papa yi moy ligne papa di quoi Ligne papa nekk ni mais bon le plus important moy nga wax papa rek quoi. Papa, moy Fedor Fom Achelum. Fom HLM. ok waaw Faidherbe léegi yaayam. yaayam demee ci côté yaayam mi ngi nii. non mi ngi nii Kell. de la vallée del di Notto. Jason Jason moo nekk nii ngeen di gis pedigree Jason moo nekk nii leer nañu amul fals amul dara euh, carnet de santé wu Jason moo nekkaat nii carnet de santé wu Jason. passeport Diégane moom d'origine fan la Serbie italien ah. gis ngeen ko nii xaj bi ngeen di gis nii xola pédigré ma ngi nii frère xola yaa ngi koy gis léegi jinjeer la tudd mais jinje tey ji nii bu fekkee da nga koy lire en wolof da nga naan jinjeer yaa ngi dégg léegi nag xola jinjeer rek nga koy wax kon donc jinjeer comprendre nga léegi xaj bi moo nekk nii léegi xolo xolo xaj bi bu baax a baax carnet de santé wu xaj bi moo nekk nii yaa ngi gis bu baax a baax avec tous ces vaccins yaa ngi gis. moom papa moom mooy nag yi. femme de stud stud dalit. kooku. champion papa ji allemand la quoi. ok papa ji allemand la serbi la. allemand. allemand la ok. Mhm. di allemand la quoi papaam. ok. dafa am lignée allemande la. yéen gis ni pédigré yaay nii leer naññi naññi naññi passeport xajeeg lépp gis lii du loo xamante ni da nga ko mën a falsifier wala loo xamante ni da ngay wax loo xamante ni comme di wax ni si air rek. dafa doon loo xamante ni danga koy gis mu leer naññi. tey ñu fas yéene waxtaan li xam ne moo di Rottweiler Rottweiler cosaanam fan la jógee lan mooy Rottweiler dëggantaan. ah waaw Babacar waaw Rottweiler moom c'est un chien et schnauzer. Euh, c'est un chien de molosse et de bouvier suisse loolu la gars de plus ëpp quoi xam Rottweiler mu ngi jugee ci ben dëkk bi ñu naan Rottweil dëkk bi moo tudd moo tudd mais xaj bi en vrai dire mon moo quand euh, euh, xaj bi en vrai dire moo tout le bouvier allemand c'est un chien de boucher ndaxte dëkk bi boucher la woon moom mooy comme ça boucher yi dañ daan dem ci marché hebdomadaire yi di jaay ay yàpp affaire

amna amna na ñu naan d'origine Irlande la écossaise yi soo te fofu nonu fa la mais Américain, ñoko nangu léegi nak c'est la même chose léegi nak non la demee ak Rottweiler léegi nag ba ci wa Rottweiler nak jëlee diko ko travail ko le bouvier bouvier bouvier allemand diko quoi travail di quoi travail ba xaj bi nag euh, doon nag seen xaju bop ñu tuddee ko nak Rottweiler léegi nag xaj bi don na un chien de troupeau ben Donne na un chien de garde en même temps donne un chien de famille

tayji jii xaj bi ñu bari dañ nan sa xaj bi dafa soxor non yow si yow la soxor mais soxoroo si borom. parce que xaj ku mu xamul la mën ta xajol lo il faut que gars yi di ko comprendre. d'accord. un chien peut être dangereux. mais bien sûr envers qui envers les inconnus mais pas envers son maître. noonu la rottweiler demee dafa doon xaj boo te ni bu dee fo danga naan kii xale bu ndaw la hmm. xamul dara hmm. mais bu gisee ab inconnu da nga naan kii c'est c'est voilà quoi c'est voilà noonu la demee kon tey dégg ngeen ko génn fii xam-xam bu bu am solo comme je vous l'ai euh, euh, au démarrage de de émission euh, wax naa leen ñu ngi Bambilor Bambilor ñëw kër Grand Matar di koo xamante ni mën nañu wax ne le milieu canin sénégalais xamaguñ ko noonu bu baax a baax a baax mais euh, boo demee ci kaw a kaw a kaw a kaw fii fii fi mbaxam ne doonee benn fi nga xamante ni moom euh, ay wax kese du fa génne ay nit <laughs> moom lu leer ngay wane koo xam ne lu leer ngay wane ñu mën la boole seen biir xam nañ ko bu baax a baax a baax tey Boy Djiné man mënu ma wax ak bi dafa kawe ba ëpp mënu ma wax ak moom ñoom maxaale yi ñoom dañ may comprendre quoi su jaxasee tey dama lay jox micro bi nga eggle interview bi parce que bëgg naa xam xaj yi xaj bu nekk papaam yaayam pédicure mooy lan nu ñu def ba indi xaj yi ñaata la ñuy financé pour indi ko loolu tamit c'est important nit ñi xam ko. waaw waaw waaw mais nag yaa ngi may def loolu am te <laughs> mënuma ko. mais non man non man damay essayer daal ba ba non bàyyi nag ma essayer quoi ñu xool. ba xam waa lan lay joxe incha allah rabbi. lu mu bon bon bon moo may tane. non ndax man moom personnellement man dama ko bëgg dama am ay question am tey sax dama ko dencal dama ko bëgg a laaj. laaj ko quoi vraiment ndaxte dama si bëgg a jàppale waale sama copain yeeg sama morom yi nga xamante ne ay éleveur lañ. te xam naa ne li may laaj ñoom bëgg nañ bëggoon nañ koo laaj daal. wàllum pédigré googu noonu tey ma soo bëggoon sama xaj ma ñëw si Matar mu jaama chiom est-ce que boobu eh, xaj boobu il sera reconnu euh, au niveau à l'international. doom est-ce que doom yi dañuy am pédigré. voilà non duñu mun a am pédigré. Mm-hmm. parce que euh, xaj yi bu ñu nekkee en état. Mm-hmm. dañ leen war a defaral déclaration de saillie. déclaration de saillie. de say ok. d'accouplement bi quoi. d'accouplement boo defee loolu. loolu mais loolu nag kii mooy. déclaration de saillie femelle bi nek ni bi muy ñëw dama ko accouplé ba paré ok bi moko accouplé déclaration de Saïe. bi. gis nga bokoy xol fi ni mhm. da ngay gis sama tour saw Mamadou Matar. fi da ngay gis Merlo Daniela. Merlo Daniela moy borom mal bi. mom mom moom bi man femelle bi. ok. Mhm. à partir de bi. Mhm. si c'est en Europe. bu doomi da ngay dellu ak kayit bi wax leen ni moo xam NCI la wala FCI. Mhm. ça dépend ci dëkk bi nga nekk wax leen ni kayit bii maa ko fi indi woon bés sàngam wax ni suma xaj ak xaju diw. Mhm. lañ leen ak couplé woon. ok doom yi nag judd nañu. Mhm. comme maa yor femelle bi. bu bone ñoom après ñoom dinañ ñëw sa kër. def contrôle. ok bu ñu defee contrôle si jour boobu ñu def contrôle xool doom yi. laaj la pédigré parents yi nga joxe petit grade parents yi. Mm-hmm. fay li nga war a fay. ak certificat de say ak certificat de say bi moom mooy confirmer ni xaj yi bés sangam lañ leen accouplé woon ñoo judd bés sangam parce que en général ñëpp xam nañ ni entre 58 ba 63 jours en général. lu ci ëpp duñ ko génn. ok mm-hmm. ñu gis ni xaj yi set lañu. ñu mm-hmm. wax ni say say bi ñu defoon bés sangam. mise baa bi ñëw na. si yooyu judd nañu. set lañu. bu ci nekk nag buy ñëw day fekk xaj yi am tur ni mun ko jël dugal ci machine bi mhm. préparer seen ay pédigré mhm. alors kii di jënd si siyo yi en général mhm. day fekk xajam am pédigré ba pare am tur parce que pour ñu defal ko pédigré kayitu doom

lañuy joxe tour bi xam nga ñun fii juróom-ñetti fan la. dañuy joxe tour bi pour bañ ñu réer. Mm-hmm. ñu takkal leen benn bande déjà. Mm-hmm. doomu diw ak diw. Mm-hmm. xaj aussi c'est pareil bu ñu rek dañuy am tour doomu diw ak diw ñu defal leen seen certificat rek léegi nag boo jëndee sa xaj yow. nag te borom da ngay fekk mu puce xaj bi mu am puce. buñ la ko puce électronique buñ la ko joxee ba pare nag yow. yaay dem sa euh, sa maison canine. ñu changer la affaire bi mu nekk sa tour ok puce bi léegi surtout mo moom ci nek microchip bi. ok Wa motax fi c'est dommage lu ñu importer importer importé. Hmm. suñu xaj valeur bi ñu war am du ko mun am parce que buñu ñu bëggoon dem tay compétition internationale. mënuñu hmm. dem parce que c'est pédigré moy li ñu leen njëkk a ok mais tey jii nii euh, boo amoon show ma bëgg benn show nii tey jii si yow. Hmm. nan lay demee nan laa mën a def. ah dara ni ngay def rek mooy teel a bindu parce que xaj bu ñu kiwee aussi dinañu am fu ko publier. Hmm. seen grossesse après yow bo bëggee da ngay wax ni bëgg OK. comme actuellement ni pour baña wax ni, hmm. amna ño xamni ñoo xam ngi nek liste di xaar. Hmm. pour bo amé porté. xaj nag bu ñu juddoo ba am 1 mois da ngay joxé une avance. la moitié. ok Buñ jëlé sen premier vaccin buñ amé 60 jours. ñu commencé livrer nga ñeu compléter. alors même boo bindoo te wulo avance am lo. ok Mënu ñu la jappal quoi noonu lay demee. si yooyu bu ñu juddu woon tey jii nii ah, bii nii dafa ëppal bii il est un peu agressif bee day boqatu. voilà bii nag moom à chaque fois boo dugalee sa tànk sax sex na sa tànk bi di langaam ak yooyu tey jii nii moom boo ko doon proposé moom mi nga xam te mosul am xaj xamul dara si xaj ban sujet nga koy proposé. bon man personnellement bu may jënd xaj xaj bi beru laay jël parce que en général moom mooy xaj bi nga xamante ne dañ naan dafa tooy. Hmm. mais li mu yoon ci biiram wane wu ko. Mm-hmm. yaa koy jël nag travail ko sa man noonu lay tànnee. waaw sa waaw léegi nag koo xam ni xamul dara mun naa la jox xaj boo xam ni dafa social. xaj bu mun a foo daw dem dellu seeg yëpp. mais man li may soxla ci xaj mooy xaj bu am réserve. ok. bu ma gisee porte bi man général en général. Mm-hmm. li ci gën a beru. Mm-hmm. man moom laa préféré moo ci gën a dangereux nag. mais di ko mën a liggéey ak moom ba mu social te teewul nga xam ne yow derrière toi moom am na jikko boppam. xaju benn nit lay doon daal xaju benn nit. bon mun na nekk xaju ñu bëri. Mm-hmm. tant que maa ngi fi. Mm-hmm. xaju ñëpp la. Mm-hmm. bu ma fi newul sama njaboot newu fi mu nekk xaju boppam nag. mun a téye boppam. xam ni moom dafa war a am na lu ko war ci kër gi quoi. un chien am am téye boppam comme doomu aadama yi rek. day dem fam ñoo xam ne da ngay gis ñoo xam ne ku ñu gis dugg ci moom. Mm-hmm. ak ñoo xamante ne dañuy xool balaa ñuy dugg. Mm-hmm. man xaj bi mooy soxla boobu ci porte bi mu laxatu noonu def noonu man loolu moom ma ci neex. comme ku mel ni samouraay. Mm-hmm. moom maa ko juddu Rita man maa ko jënd fii ci benn femme italienne bu nekkoon euh, VDN. Rita. ku dul man ak suma njaboot nangu ko parce que moom dama ko amee chio. samouraay même chose. ñeneen ñi su ma taxawee duñ def dégâts comme kii du def actuellement. parce que maa ngi fi. Mm-hmm. bu ma ko laalee jox la ko mm-hmm. dina nangu. mais boo ñëwee bu ko laal su bopp dafay bañ. non day sànq noonu la def sax. waaw parce que loolu aussi bi ñu koy jënd. Mm-hmm. aussi dañ koo laajtee. gëstu ko tam xam moom na lañ ko yoree parce que booy jënd dugg ci net bi da ngay wax li nga bëgg. adulte xaj bu adulte laa bëgg dama koy yóbbu Afrique il faut mu social. mais aussi il faut mu doon xaj boo xamante ne. bu gisulee patron du nangu ku ko jël def ko lu ko neex est-ce que tay jii nii c'est possible ñun ñun éleveurs Sénégal ñu am suñu pedigree même bu fekkee ça, mettre une Sénégal la avec le temps euh, FCI euh, nangul ñu wala nga benn opportunité génn wala dara quoi. FCI moom mënuñu bañal suñu pedigree. ok parce que ñun dañu am euh, wareefu suñu xàcc di am pedigree. Hmm. loolu nag il faut ñu am benn central canine. ok. Central canine moom moom la ñu war a am. Hmm.

italien laaj na ma ko. Mhm. mais bu demee moom dina lijjanti ba defal ko pédigré parce que déclaration de saillie moom mi foofu ba léegi bu ñu demee contrôlé dañ koy gis mun na ko lijjanti. Mhm. mais du jëriñ Sénégal moom lay jëriñ foofu. ok xam nga amul njëriñ il faut ñun éleveurs yi daal. Mhm. ñun ñafe xam nga rayante songu ministère de l' élevage. très important li ngay wax nii c' est très important. parce que centrale canine fii ba cent ans dañuy importer rek. boo demee ay Nigéria boo demee Cameroun ñu ngi ak ay sujets yoo xamante ne extraordinaire pourquoi du ñu gën niveau mondial. et pourtant seen sujets yi ay sujets niveau mondial la. Mm-hmm. parce que ci parents parents yi gagné championnat du monde yi. Mm-hmm. ñoom la ñuy jël. Mm-hmm. seen sët wala seen kii indi ko mais pédigré bi moo ñuy bloqué pour lan. mais tey jii nii tey ji lan nga ñu mën a wax euh, si xaj yi nga xamante nii ñoom nga importé comme ça coût bi ñaata la lay dikkee si euh, femelle quoi. wala ñoom ñëpp benn rek nga jël si benn rek. bon comme par exemple qui m'a la indi ok octobre ok. ko indi octobre ok de ko vraiment 4500 euros 4500 euros Oui.. muy 3 millions 3 millions Wow. légui nak bon li yenen yi affaire yu sew yi doo ko ci boole parce que mooy defar kayit yeeg mm-hmm. jënd cage mm-hmm. tout ça dagal ko billet seen billet c'est pas cher ñoom 200 cent euros la muy cent trente mille moom nga koy fayal après mais di nga defar certificat de propriétaire bi mm-hmm. maanaam changer turu kayit bi fële inscrire ko si fi nga dëkk moom maa ngi ko jëndee Venetia alors que man maa ngi dëkk Rome Rome léegi il faut que ma jëlee ko Asle bu Venetia. mu toxu ñu ne xaj bi léegi Rome la dëkk parce que boromam bu bees bi borom la am résidence xaj bi fi ma am résidence xaj bi foofu lay dëkk sinon mënuma jël xaj bi di ko génnee ok léegi yow boo dee boo dee tukkeeg xaj bi war koo indi Sénégal loolu nan lay demee ba xam papier yi ba xam des fois da ngay gis comme te day indi xaj Sénégal mais après buy ñibbi day delloo ji xaj bi wala moom bu dee war a ñibbi sax dañ naan ko lu tax xaj bi delluwul yooyu noonu comme yow nan nga ko mën a indee nii après euh, duñ am problème du am dara waaw li tax mën nga mun ko indi mooy li ma lay wax boo ko jëndee ñu defal la certificat propriétaire bi mm-hmm. boo defee certificat propriétaire bu fekkee da nga ko jëndee Dakar mm-hmm. nga dëkk Dakar xaj bi du changer adresse pratiquement dañuy def rek sa numéro kër rek la ñuy def du changer ville mm-hmm. du changer ville ok mais comme kii man moo ko jëndee Venetia dama ko jël inscrire ko Lazio région Lazio capital bi rom ñu le Rome ak mom mu am adresse suma kër. à partir de kayit boobu. Mm. ci lay mën defar benen kayit bu ñuy wax certificat per l'expatrio moy certificat bi mun tax mu génn. ok bu mun a génn dëkk ba. Mm. fii xaj bi dëkkul suma ville. Mm. bi ma dëkk mënuma ko am. ok bu ma amee loolu nag ci biir boy def boy remplir loolu dañ lay laaj ndax xaj bi day ci siwaat wala du ci siwaat. nga ne leen noo suma xaj dellusiwul siwul day dem toogi fële Afrique léegi ñun la kon demal nga defari ko euh, certificat de bonne santé chez le vétérinaire mu xam ni xaj bi dara jotu ko boo ko defalee certificat de bonne santé bi warul dépasser dix jours te xaj bi génnul dëkk bi bu dépasser dix jours da defaat beneen certificat mais dina fekk boobu yow nga programme xaj bi am antirabika mooy entirage bi kooku xajj bi 3 mois avant muy génn dëkk bi war nga ko defaral mm-hmm. alors du coup boo jëndee xaj bi rek loolu mooy liggéey njëkk def parce que il faut mu def minimum 3 mois mm-hmm. pour affaire bi jaar yoon quoi. mais grand man lan mooy lan moo ma gën a euh, euh, jaaxal mooy yow gis naa sa photo ak champion du monde en en Italie. Ah. gis naa aussi say vidéos ak moom. Mm. mais comme ça relation yooyu noonu nga am si ñoom ba mën a indi yenn sujets yi nii. est-ce que tey jii nii euh, ku bëggoon a def benn élevage rottweiler est-ce que tey jii mën nga ko jàppale wala nga indil ko sujet yoo xam te ni ay sang comme yi sangu champion yi pour que moom mu defar élevage yu rottweiler am ici euh, ici euh, au Sénégal. ah non bien sûr loolu amul benn problème parce que man mënu ma indi xaj yëpp. Mhm. alors di coup su ma gisee te am na ñoo xam ne jot nañu waxtaan ñoom ñoo dellu ginnaaw. Mhm. wax ne dañu bëgg a importer ma wax leen ni ñuy def bu ma la joxee di ma utal. ma balaa ma lay utal tam damay gis. proposé la. Mm. boo ne intéresé na la ñu indi borom. mu jàll quoi parce que tamit loolu rek mooy mun a tax dëkk bi am xaj yu baax il faut ñu importer boo importé nag liggéey benn génération toog xaar résultat yi mais lépp pédigré. pédigré waaye booy boobu nga wax nag champion du monde moom Sydney la nit ku mm. ñuul la. Mm-hmm. mi ngi dëkk Naples Sydney Tassiero. Mm-hmm. moom il champion du monde ak Calamity. Mm-hmm. waaw mi les champions du monde, ak calamity wax dëgg fa c'est un noir ñu adopté ko mu italien yi mu champion du monde nekk vice champion du monde nekk champion d'Italie mm-hmm. nekk champion d'Europe mm-hmm. moom le titre yëpp dafa rampé dafa gagné Italie gagné Europe soo ko dem présenté au championnat du monde remporté ko ak même femelle bi mu ñëw défendra titre am nekk vice champion parce que trois mois avant championnat du monde yi femelle bi calamity dafa defoon porté alors mu xaw a perdre tuuti ay performance am te teewul moom moo yéegaat. Mm. waaye Sydney moom. Mm. ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ci Rottweiler. Matar wax na lépp. Matar wax na lépp ku nelawati moom yow la neex nga nelaw neloo comprendre indi fi ay xaj yu yu am pédigré ñu xaj yu baax c'est possible. produire ay xaj yu baax c'est possible mais nu ñuy def ba xaj yooyu am pedigree aussi wan na leen yoon bi yéen ñi nga xam ne yéen a yëngu si wàllum wàllum wàllum xaj booy junne ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tey moom on est vraiment content on est vraiment satisfait ci li ñu gis ni ak par rapport disponibilité grand bi et tout yow sa disponibilité moom nekkatul lu ñuy lu ñuy lu ñuy wax vraiment yaa ngi yaa ngi jàppale bu baax a baax a baax lan ngay tàggatoo. ah non dañ man moom pour vous dire vrai damay remercier grand Matar avant tout.